seetaan biir réewam bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar baax a baax baax di leen bége waaye di leen euh, ñaanal suñu borom lépp loo xam ne tabaarakallaahu euh, ñaan nañ ko ci gàmm gi tabaarakallaahu suñu borom nangu ko waaye di ñaanal xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour suñu borom dolli ko wér te yàggal ko ci xalifa gi lool lool lool lool tabaarakallaahu ñu nekk ak suñu xarit suñu soppe di kenn ci nga xamante ne nii. Euh, baayam moo bokk na si ñi nga xamante ne tabaarakallaahu waykat wala kat yonent yi nga xamante ne ni ñoo tabaarakallaahu jël topp ci xadaratul malikiya tabaarakallaahu muy duuda kenn mbay tabaarakallaahu ñëpp xam nañ ko kenn dootu ko présenté kenn tabaarakallaahu moom mii si boppam tabaarakallaahu dañ koy jox mu nuyoo ñi nga xamante ne ñoo ñu seetaan moo xam biir réew mi ak bitim réew seen spécial gàmm seen bi ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di seet di nuyu mboolem internet yi di jiital ci nuyoo bi la xale général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour ma ñaanal ko yàlla na yàlla guddal fanam ba jumaay maam ji mu jiite ko ñun ñëpp ñu fekkee ko naal yi mu naal ci tari ci kër gi ak tariixa bi ak diine ji yàlla mottali ko ba mu naal yeneen i naal di la nuyu tamit bu baax a baax a baax. barakallahu jërëjëf defe naa Serigne Babacar la. waaw sëriñ mbaa mbay tabaarakallaahu mbay maa ngi lay nuyu yow tamit di la ziar bu baax waaye tamit di la ndokkeel ci guddi gi nga xam ne nekk nañ ko muy guddi yonent bi tabaarakallaahu nga xamante ne nii dangay gis ne bu ñëwee rek xel yëpp day dem ci gàmm waaye bu ñëwee rek xel yëpp day dem ci ki nga xamante ne moom mooy sa wajur bu góor tabaarakallaahu muy jàng-jàng yu neex loolu tabaarakallaahu waaye bu laataa ñuy xus ci li nga xam ne moo ci waxtaan bi da nga lay bàyyi nga ubbil ñu lenn rek ci xilaas wala ci euh, loo ñu mën a barkeeloo ci yonent bi rek incha allah ñu barkeeloo ko ak internet yi ñuy seetaan Africa Top CNN هدى انفسنا دلت هدى انفسنا دلت عن الرشد فاهتد عن الرشد فاهتد فسامت وقامت إذا نون جئنا نحوه من تعلم وجدنا وجدنا وسهلا لم يشدد ولي منار الدين على ورفاتا إنارات عموم محمد سليمان أمرين موسى بن عدتين خليل الدينين سني لمحمد ومن لي كمن لي سيد الحاج مالك باي سيد بابا كاسي بكرك درمان أرم لما كم بچا مومن لي بيوزو تازي يربي مريده بلا خلوة بل همتي مثل أحمد ومن لي بإقراج الحقائق ناصحا ومن لي بتدرس الكتاب ومسندي كمن لي ببدل الفقه والنحو منطقي بياني مانع بدين يا ومن لي بورسل بل جنيدي والأشعري ومن لي بآداب ودرب المؤدب كمن لي بنجم في النجوم وموسل سيد الحاج مالك يا مصل أصول سيد الحاج مالك يا محسن أرون سيد الحاج مالك سي يا مسل سي رت البدر مقود ومن لي contentement ndax nag dafa nekk loo xamante ni si dama daan dégg xale alaaj dut kenn daan ko way ay gàmmu ndar ay jumaay sëñ Babacar guddi gàmmu ma gis ni dafa nekk lu viral ñëpp bëgg ko euh, mu nekk nag way woo xamante ni si def naa ko sax son ba ndokkeelee ko euh, ñi nga xamante ni si ñooy ñoo bëgg Seydil Hadji Malick euh, nekk mu nekk nag loo xamante ni si dama ci ànd ak fierté ndax way dafa nekk loo xamante ni si du lu ma judd rek bëgg ko dama judd fekk ci samay maam fekk ci samay papa fekk ci samay bàjjan sax ñuy way. kon ñu déggee baax mooy dafa mel ni kon dañ la tette ci li nga xamante ne moom moo ci way bi. dañ li nga xamante ne si mooy way bi moo tax boo ñu gisee da ngay xam nit ñi dañu nekk à l'aise ci li ñuy def ndax naaj dañuy gis suñu papa yi ni ñuy doxalee eh, ñuy gis ñi nga xamante ne si ñun ñooy suñu ñooy suñu royukaay ndax man Alaaji Duudu mooy sama idole. ma gis ko mu ànd ak dal ci li muy def ànd ak sérénité ànd ak discipline ci li muy def waaye nag ànd ak li nga xamante ni si mooy passion moo tax rek su ñuy way bayit yi suñu xel day dem ci way li ko alaaj dut kenn daan waaye dañ ciy ànd ak mbégte ak contentement bu baax a baax. defe moom mi nga xamante ne moom mooy seen waajur di alaaj dut kenn tey ju nga xamante ne ni gis na leen tey ngeen téye micro comme moom ni mu ko daan defee di way kon defe naa kon bu leen gisee kon defe naa fierté lay nekk ci moom waaye tamit dina dal ndax yàlla yéex lool lool lool fu bawoo ngeen am ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy doon ci kër si xaaj ma waaw loolu moom dafa nekk loo xamante ne si euh, bàyyi mu nekk day ñaan ci li nga nekk muy lu baax say doom incha euh, boo demee ba am yenn âge nga xam ne ñu ñu ngi ci tànk yoo xamante ni si mën nañ la cee wuutu yàlla na yéex ndax nag alaaj duudu dafa nekk koo xamante ni si war naa ne bu sañoon sax ñun du teel a génn di way waaye nag yàlla dafa dogal ñi mu daan àndal ñii dañ feebar ñuy xaw a jagadi moo tax rek loolu moo ñu tax teel a dugal ci groupe alaaj duudu bi ñuy ànd ak moom di ko jàppale waaye moom bu toogee eh, am na vidéo boo xamante ni si mi ngi doon wax ci alaay ci Seydi Hadji Malick ma yëkkati alaay yu ma bii ma doon way mu am fierté naan kii sama doom la Baye Mbaye laa ko tuddee dëkk bii bi maam moo fi daan way am fier da nga xam ni kii ni am na benn épanouissement boo xamante ni si mi ngi ko amale jëmale ko ci ay njabootam képp nag kuy tàgg yenent bi moom bu la gisee nga teg ci tagg yenent bi nga def ko dans leen normu ak discipline ak dal moom wax dëgg yàlla amul xaaj ak seen day ànd ak fierté day ànd ak contentement day am honneur ci loolu noonu wax dëgg yàlla. yéen yéen a ngi ci milieu tagg yenent bi sallallahu alayhi wa jamono ji ñuy gis euh, xaw na rëb lool ñu ngi ci boole loo xam ne bokkuñ ci anal ban lancement ngay lancé ñi nga xamante ne tey jii ñoom ñooy yàq ñi nga xamante ne moom mooy milieu bi di defar ña déformer woy mag ñi wala di ko way di ko wayee naka su noonu. waaye ñooñu peut-être gis nga nit ku nekk lii lay yëkkati nit ku ne ak la la tax a jóg gis nga am na ñoo xam ne dañoo dugg ci tàgg yenent bi euh, ndax xaalis am na ñoo xam ne dugg ci tagg yenent bi ndax alal ndax jigéen. plus précisément dama yàlla baal am na ñoo xamante ni si dañuy dugg ci tàgg yonent bi ngir bës ngir bun demee ñu mën leen di kii ndax am na ñoo xamante ni si loolu moo leen ñu dundal ndax am na ñoo xamante ni si euh, dañuy fayeeku tam tey ji par exemple sam papa lu muy lu muy lu muy lu muy am lu muy am baat ci kër gi kër gi lu mu mel ak daraja bu mu am bu mu am boo ko woowee programme ak koo mënti doon nekkal xale du la facturer du la wax charte moom day ñëw defal la ko te yàlla tax kon kooku xam nga seenu ci seenu ci leneen en retour am na ñoo xamante ni sax ni boo leen waxee euh, tagg yonent bi dañuy ñëw lool loolu lañ ciy jiital soit alal wala soit leneen wala soit buzz moo tax dañuy créer way yoo xamante ni si dañuy xam ne lii mën na indi buzz ñu def ko waaye ma ciy lancer message di wax ni loolu baaxul nañu way xasida yi way ko ni ko mag ñi bindee ndax nag wax dëgg fa neex yàlla ñoom papa Abdoulaye Mbaye ñoom alaaj dut kenn ñi xale yi def mën nañ ko waaye defundu ko ndax xam nañ ni way leer moo ci nekk kon sama jeunesse gi sama morom ma leen di laasa message ñu gën a bàyyi xel ni ñuy woyee ndax nag wax dëgg fa neex yàlla li euh, Fata Sarr wax rek ni musiciens yi amatul lu ñuy way ndax nabiyen yëpp jël nañ ko loolu nag di tagg xas la wax dëgg fa neex bu demee bu ñu tëkkaleeg musiciens yi loolu xas la waaw kon nag ñu jàng xasida yi ni ko mag ñi bindee incha allah bu buñ ko defee rek lépp lu ñu bëgg ci tagg yonent bi dinañ ko am te tagg yonent bi nekk na loo xamante ni si li nga bëgg moom la lay jox boo bëggee xaalis moom ngay am yam ci waaye nag la nekk ci biir dëgg dëgg dëgg faaw nga ànd ak ci ak yàlla gu mat sëkk faaw nga ànd ak cellite ak yàlla gu mat sëkk kon est-ce que xamante ne ñoom ne tagg ko yonent bi jarul ngeen ngeen ngeen def seen association boo xamante ne tey jii ngeen bañ kenn rax leen waaye ngeen di yëkkatindoo di dóorandoo di déggoo ji lépp ndax loolu kon jotul. loolu mën naa ne jot na ndax képp ko am esprit bi ma am waxuma sama esprit moo baax beneen a bon de waaye esprit bi ma am mooy ñu ñu ñu ñu favoriser xasida yi bañ bañ bañ te bàyyi création musicale yi ñuy def di ko jëmale ci yeneen bi bu nu bu nu bu nu bu fekkee ku esprit ku am esprit bu mel ni man am na kon jot na ñu def benn association. lépp loo xamante ni sii day taqal lu jëm ci kër gi ñu dindi ko ñu waxtaan ak yow boo ko mënul ñu def ko de force loolu moom jot na te incha allahu bi dinañ ci def ay jéego incha allahu rabi pour amal loolu noonu. Baye Mbaye fi ñuy jeexale mooy ñu ngi ci gàmmu Tivaouane 2024 ban yëg-yëg nga amaat ñëwaat fii nga xamante ne moom mooy dëkku Sidi Hadj Malick dëkku Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu waaw loolu moom dafa neex. gàmmu Tiwaawan dafa nekk loo xamante ni si dafa extraordinaire dafa exceptionnel te nekk day nekk chaque année day nekk journée boo xamante ni si day nekk une journée inoubliable ndax Seydil xaaju Malick moo initié gàmmu ci néeg la ko commencé daan def kaamil xaaju ko ak xaaju suuf kon tey jii bu ñu demee ba Sénégal gépp àddina bi yëpp àddina le monde entier yëpp. di feete gàmm ba Medina Màkka boo demee foofu dañuy feete gàmm ci la nga xamante ne si Seydi Hadj Maam moo ko initié kon kooku boo dëkkee Tivaouane yàlla boole la ci njabootam daw am leen lu contentement damay faral di wax ni boo demee ba Inde ni yóbbu ma gàmm kese waxoo fa nga dem Tivaouane lañ lay indi loolu Seydi Hadj Maam la ko yàlla defal gaa yi nag dañ koo war a nangu ndax mooy jàmm ji wax dëgg fa neex yàlla mu nekk loo xam ne Tivaouane bu gàmmu jotee koo ci wax safaan da lay reetaan ni la baal naa la dem ndax ti Tiwaawan ndax nag ndax ki tax ñu bindu ñu la ñuy màggal muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye moo tax mu ne ala azim wa laylan wiladati xisbatan idaalam lakun naxwal xaraami udulu Seydi Xaaji Malick dafa nekk loo xamante ni si moom léppam da ko jox yonent bi nee na jaamu yàlla yi may def ak bind yi ma bind ci yonent bi yaakaaruma ci lenn lenn laa yaakaar sama cofeel ci Seydina Muhammad kon kooku wàccoon ak ñun moo tax nag gàmmu gi dama dama heure bu ñëwee képp kuy jullit man dama épargné tijaan képp kuy jullit war nga cee mën a bëgg ndax yonent bi moo tax moom la ñuy màggal juddoom wax dëgg fa neex yàlla mu nekk nag yàlla dogal mu nekk guddik altine te yonent bi léppam altine la wax dëgg fa neex yàlla mu ne lu alaa daw me ah, li ko sëñ Mansour daa waxee gàmm gi gisoo sa kanam gi ni mu bellee macha allah nga ànd ak cawarte ànd ak leer belli nii comme taalibe cheikh ni ñu koy defee wax dëgg yàlla fala tara ahadan min ahli abadan loolu dafa leer kon nag wax dëgg yàlla ñu ànd ceeg fierté ànd ceeg contentement ndax Tiwaawan foo dem bu gàmmu jotee naasiril xaq bil xaq bi day dal salaatul fatiha bi di jolli nit ñi di tagg yonent bi de gauche à droite loolu Tiwaawan rek la mën a amee moo tax dañuy kontaan wax dëgg fa neex xam naa du ma la bàyyi nag lu dul na da ngay tàggoog ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan moo xam biir Roma bi bitim seen spécial gàmmu 2024 fii si Tivaouane Baye Mbaye da ñuy mayaat benn bayit rek nga tàggoo ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan allahumma ya man azhara al jamil wa satara al qabiha wa lam yuaxiz bil jarira wa lam yatiki sitra wa ya xasana al wa ya waasa al ويا تلي اليدين بالرحمة ويا سامي كل هجوة ويا منتا كل شكوى ويا كريم السخي ويا عظيم المني ويا مقل العسرات ويا مبتدئا بنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية ربتي या रबी वया सईदी वया मौलाया वया कैदर बती या रबी वया सईदी वया मौलाया वया कैदर बती أسألك أن لا تشوي خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب النار فمن علينا إله العرش خالقنا بصحبة الخطب في الدنيا وأخرى لذاك توسلنا إليك بكل ما أتتك السماء مختلة بسعودية بارك مكة بارك مدينة بارك فاس بارك تيوان بارك سيد الحاج مهدي بارك شيخ الخليل سين M TV Africa 7 mooy chaîne bu baax bi ku bëgg a gis lu baax bëgg a gis lu neex bëgg a gis bëgg a xam kuy yonent bi bëgg a xam kuy mag ñu baax ñi bëgg a gis ñun suñuy vidéo da ngay dem Africa 7 man maa ngi cee biir salaamaaleykum wa rahmatullah واجزيا يا إلهي واجزيا أبدا محمدنا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم